Mantulaay Cubb Ndooy ngeen taaxirlu ñu xuusi faram fàcce gi mbokk yi ñu leen dalal jàmm si bile jotaay yu xibaar sa ndar lañu kaa dooree foofee Cheikh Bamba Dièye moo fa dikk yëkkati ay kàddu di xam ne ni kon euh, faw nag ñu bàyyi xel bu baax doomi euh, Guet Ndar ya nga xam ne ñoom ñoo faatu woon 2003 lu mu gàtt gàtt ëpp nañu ko ñeenti téeméer kon nag bu ñu gis kon nappkat yi am nañu doxalee caxa-caxate yenn ci ay màkkaan lakk benn oto ñu bëgg leen joxoñ baaramu ko tuuma te monte de lu jiig njaag nag nguurug Sénégal moo di njaag ñu teew lay kaddu moom Cheikh Bamba Dièye depuis 2003 ñeenti téeméer ak juróom fukki doom faatu nañ fa boo dajale woon néew yi day mat un kilomètre néew. leen licencié jeex na bu ñu demee ñu jàpp leen maanaam ñu wax ak Masamba bu ëllëgee bu ñu demee ca garde côte ba mu nangu seen gaal nangu seeni i matériel nangu seen i portable yenn saa ñu dóor leen balu fetal yooyu la ñuy bañ waaw ñu ne loolu bu ñu koy kaas. depuis 1900 ba xëy ñett ba léegi kenn faale ñu yëngu-yëngal comme ni gars yi di yëngu-yëngalee. ñu ne nga gis gars yi jóg ñu moraal ma ne soxlawuñu moralu kenn kenn gënu ñoo yaru kenn gënu ñoo xam suñuy droit kenn gënu ñoo xam suñuy àq ak suñuy yelleef li ñu bëgg ci réew mi mooy bakkan yii suñuy doom yor te dem si géej gi ñu suturaal leen si aaral leen ko loolu mooy suñu farata moom la ñuy xaar te lu dul loolu duñu ko déglu ndax amaluñu solo diggante Sénégal ak Mauritanie faw nguurug Sénégal nag dox si lu wàllum fulla ak fayda xamal ne Mauritanie kon bu laajee koppar ñu teg ko si taabul ji ndax sunu doomi Sénégal yi war a mën a dem nappi foofee ndax ak yaafus gu mat sëkk nag la nguurug Sénégal di doxal ci kanamu Mauritanie mu day kàddu yi tukkee ba tey ci Cheikh Bamba Dièye européenne dafa waxtaan ak Mauritanie laa defee signeenteeg moom accord jël ay milliards fay ka seen ay bateau yi moo xam bu grec la moo xam bu espagnol la moo xam bu français la day ñëw fay ñun ñuy état Mauritanie di état lan moo tere suñu gouvernement dem sa gouvernement moo ni ko ñaata la samay mool di fay pour mën a ñëw napp si mu ne leen nangami milliards la mu jël loolu ni moom léegi nag ku ñëw ca Gendar bëgg a dem Mauritanie man état Sénégal maa lay jaay licence la nga xamee ne moom lay jar ñu distribuer ko ca nit ña ñooñee fay ko dem ndax nit ñi bañu ñoo fay li ñuy bañ mooy ku leen sàcc li ñuy fañ li ñuy bañ mooy koo xamee da ngay téye seen licence ba licencié jeex nga ni leen licencié jeex na bu ñu demee ñu jàpp leen maanaam ñu wax ak Masamba bu ëllëgee bu ñu demee ca garde côte ba mu nangu seen gaal tukkee ci Cheikh Bamba Dièye sa diwaanu Thiès benn dëkk ñaari gaar la yëkkatee yooyu les kaddu gannaaw ba ñu doon jëpp jëmmal ni ki si njeextulaay bés bi bëccëg bu ñu jagleel xeexum jàngoroy cancer ñu àddu jëmale ca diwaanu Thiès la ñuy desandi ak juróom fukk ak juróom-ñaareelu euh, anniversaire bu bataillon commando bu nga xam ne doon nañu ko fa jëmmal foofee su njeextulaay bés bi mu nekkoon ci teewaayu njiiti